مجعنا لك السماء والأراضي والأرض يا مشارك غيرك من شبه بنا أجد وسجد الشجي منه على سند محمد وسجد تأتاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp xam naa ko kon di ko dara ci maanaam sëñ Xaadim ñi nga xam ne moo doon def waxtaan di di ko sant bu baax a baax ci waxtaan daal di jiwaat na xool yi bu baax a baax ci nu ñu mën a jëriñoo ci sëñ bi xam naa di ko ñaan rek tey di ko nuyu sëñ Saliou bu waxtaan dana xaan sunu waa ji di ko nuyu bu baax a baax waaye xam naa jógoon na sax ginnaaw moom li mu wax ma ma ma tamit sëkk la ma tamit sëkk jaar ma ne xam naa daa ko jéggoon sax nag mu ma di seen kàddu xanaa rek seet ci ci kàddu ñàmbaat ko rek ci ngir terale ko xam naa man de daanaka li may bëgg wax rek tuuti la ci di ko déglu ci ci waxam moo rek daal tawxi tawxi daal moom ma damaa jéem lool xam ne mooy sama mbir moom laa bëgg a doxee moom laa bëgg a daal jiite tasawuf nag dina am lool danaa ko sax dund waaye nag soxit daal damaa gën a wóor man soxit muy tëj yàlla. borom ngóor gi dafa xool lool si jariñ bi bi jëm laa xool suñu bopp jëm ne boole ma ñi nga xam ne barab la ñu doon toppatoo bokk naa ci. xam ne ma kon kon wax xam naa ci lu sin waaye damaa gis daal li daal borom bi tëj man lool. raglu lool lool nga xamante ne daal moom koo xam ne bëggoo woon képp suuf laal ko tax ma xat lool tax ma nekk naa ko muy tax ceeb rek yaatooy bi nii xat lool boo maa yëgee nag nit jaaxama lool xëy na suñu doom teraanga ji li muy rëy rëy suñu la teral teral foofu la ne jëmm jëmm ji loola la daal man ci man jiitaañu lool nga xam ne daal man nag toog toog toog yi kon damay gën a wóor tawxiid wéetal yàlla karaa yi wax ne day man su may gëdd di nelaw sama xol bi ku dul yàlla doo ci fanaan man de man de foofu la ne xam naa ne Cheikh Moustapha sama sang ba ne woon jiwam ma doy waaye man de tawxiid dama doy tawxiid wéetal yàlla moom xam ne moom dong moom moom moom ngóor gi lu ma la fonk fonk nag xam ne jaamu yàlla rek ndax waaye nag lu ma la tegtee nag moom nga fàttali ak déedéet kooku moom kenn xamagu ci man ñu jël seen ci beeg suñ beeg ñëpp ñëpp daal laa jëmale nag ci ñi ma wécceel yàlla man yàlla ma ko wécceel ndax damay xool sama ci jëmm ji ñu ñu ko yàlla defaree man ay waay xam naa bu doon nit di ah ma man nekkoon maanaam sonn na kon ci liggéey ko lëgëj ñu rappelé jëmm ji rappelé ko ku ne mu war ko rappelé ko ci yaag ku ne ma def ko ay coow yu génne ndox ak génn gi génn leen deret li mu def loolu def ko def ko ñoom ma ko ba mu jekk mu suturaal ma lool suulee soo xam ne maa ngi ko sant seen dugg xam ne ne doo ko laaj mu ne ah ci biir moom si daal du du ma ko bal kenn daanaa wax ne day ah man day man day ku ma ku ma jëriñ ku dul yàlla waaye nag danaa wax juróomaal yi kenn si daal di seetlu tuuti salaam lool danaa ko ormaal danaa wax juróomaal suñu baa lool waaye ku ma jëriñ ku ku yàlla nag man ma xamul loolu nag saa bopp lay wax saa bopp man man man képp lay wax maanaam waxuma keneen saa bopp rek ah soo may jéem a nekk laa wax soo ma ne soo ma xam ne fa la ko jéem a nekk nag lay wax. ci nag suñu bopp bi man de dama ko waral lool yaakaar naa ko waral ay boo boo boo boo xam ne daal bëggoon naa yéen ñëpp maanaam fekk ma teeloo la teelal ko ndax seen seen baaw amoon naa ma maam yoo xam ne dara wax naan suñu moom de ma mu ne man lu xew kii këlu ma la xew bu kay ngay wax xaw ma nu mu muy xewee asaan la moom dafa sëñ si loolu am naa wujur boo xam ne dara wax naa mën de génn sax de bu bu guma ko ndax dara nag wóorul parce que xew guddi am na man ñoo xam ne sëñ soxna yi bu daana ko laaj ci ba tax naa ko loo gis ci ci ba tax kooku it mu mu di ko waxtaan ne ko nga de tey li ma lay ci wax di tey dama koy waat doon rek soog la ko wax si si si si ñoom mu ne ko mën ko waxaan rek. ne ko de gis naa fa koo xam ne ku daal góorgóor góorgóorlu la ci adduna nee na morom nga ko ko ci ab néegu ban boo xam ne mooy ruus wala ma maa ngi ñaar wala yeneen yeneen waaw kii moom loo leen li ñoo ma rek jëf ju baax jenn jëf ju baax ju mu digoon la ci moom nangu ko de ci lañ koo fayee lii te bu jeexee kat ma nga jëf ma nga jëf sa ban ba nee na mu ma ne leen waaw yéen xaar su ngeen gisee ku baax bi doon ko wax ñu ne suñ ko gisee dañuy fàtte su dee suñu waat dañuy dañuy fàtte waay koo xam ne dana dana doo jël gëral dina ci maanaam saison bu foofa de ña fa gën a ña fa gën a baax ña fa gën a jëriñu foofa mënuñoo jox sëñ bi loxo ab weer rek do do jox sëñ bi nga xam ne ñi gën a ciw foofa ëllëg xam nga sëñ waaw dafa sori na daa sori moom daa sori lool ñu tëdd yàlla de yaakaar naa ci misaal ku dem ñaari ñetti ñi bu bu demee mel na gaaro yaakaar naa duñ bokk suñu ne borom bi yaar borom million ak borom gërëm bu bu bu ñu fanaanee nag Ndakaaru ndax ñu ñooy bokk ku waay ak dal yaakaar naa du du ko bokk de hôtel yi wute na lool te am nga xamal am hôtel lu ay nangam yu mi mi junni nga ko mënta am mën naa am hôtel yu junni te ak këyam gërëm ni moom mu ngi dugg ci ci hôtel yi fekk na benn kon si doom kon comme ñëw ci dal yam ñu ko dafa ci moom ñu ñu ñu ko dafa ci de kooku kooku kooku sonn na lool kooku su la xam naa ne moom mosoon naa bàyyi ji xel su xam ne aw bi suuf lay si ballu dama ko si waay dañ ko ni mën naa bàyyi xel lool su su xam ne aw bi suuf day day wut ab xayaat di ko liggéey sëñ bi di dox ci kër gi ba tolloog moom mu daal di fëgg daal ne ku toll lu fii su xam ne ndaw bi nekkoon ci la ci la ko man la aw bi suuf mu ne ko lay defoo mu ne ko damay defar ab fajar nga fekkoon ca ca fajar ba suñ ci waa soxna yi daw leen jox ab lal bom fajar sakat rek ñooy jox sakat ci xam noo ko def soxna sa daal sëñ bi ne ni ci ci ne ko waaye law yéen ñi sañ a wut fu ngeen di xaare ngelaw soxna sa nee na keroog la ma la ma dégg sëñ bi tudd waat boobu nee na mu ne ko aw gusoo jégatil ma dégg la bala ngaa mel ne doom ju amut mi jaay ci bët ba lay dégg ne ko ci ne ko aw guddoo mbaa du ngeen bàyyi yee fere yi liggéey bi ne waa bu dee fokk ñu ko bu jeewal te bi ne ko ñiy fay xamuñu ku jotul daal di ne ko aw guddoo bu la kenn tee jaaw mu yàlla àjjana day benn góor la am te du ko dugal ku ku ku jànguwul te tamit soxna aw guddoo la de mayu kenn ci fan xam xam nga loolu suñ toll ci léegi ni koy ci waxee ndeyam suñ bam nañu ko dana jaam mu yàlla de doo kenn tee def àjjana benn borom la am muy yàlla ne ko du dugal nag bu ko jaamu wut aka aka leer yaakaar naa loolu mat naa bàyyi xel loolu xam na suñ Moustapha Lo ci Abdourahmane nee na ma daa am kenn ci soxna yi batax yi ku ko batax dem ci gaba marché ma yéenim dégg fa kuy waaraatee di wax àjjana rek di neex lool ba mu gisee mu ñëw di wax soxla yi na nga ah man de àjjana joma di di teel jaba wóote naa di jënd sëñ bi la wax takkawute takkawute sëñ bi xam nga àjjana sëñ bi nee na benn bopp la am xam na ku ñëwoon njëriñ koo xamante ne ne ne xaritu yi li mel ne faar maanaam ku ku ñuy wax góor gi gi doon seen sàmm moo ko indi ñëw ci sëñ bi koo kooka toobit dañ ko jox ak dugub bi fii maanaam ñëw ci ci li ne ko def daa bëggoon ci ci ci ci may ci mu ñaan ma ne ko yëg mu ne ko jigéen bu ci sàmbare moom min la bunt ya mu rëbb ko ba mu ñëwee ba ci sëñ bi dañ daal di ubbi fenêtre fenêtre bi dañ wax day gudd ba suuf dañ ubbi ko toog ci suuf daal di mu ñëw ci yoon daal di di ne jiwoon jiw jëlee ko ci la tiiree xarit ko yële ba ba beneen mer la da da dafa am tool bi liggéey bi di ko yokk bëggoon na te te te ñaar ko waaye ji ji génne ab sëq bootam ci xaj booba ne ko jëyi sëñ bi dé dé dé ko tere suuf mu def suuf sëñ bi def def ci suuf xam naa bañ mu naaw kama doon nekk li moo moo jëfe doola daal di ne sëñ bi di ne ko ku ñu lu mu jublu ci ci xarit bi mu ne ko sëñ bi nee na loo jublu mu ne ko xanaa gudd fan am alal dee dem àjjana xanaa daf ne leen ba ba muy wax nag mu réer de sëñ bi ne ko faral mu jiwit ñu ko ne nee na waa ji ci ma far ko ngir ba dee xam-xam sëñ bi lu lu ciy teg sëñ bi ne ko ku bëgg a ku bëgg a alal da ngay nangoo liggéey te jiboo ci ñi nga dëkkal maanaam ñi nga bokk liggéey ba man saa ko firee noonu ñi nga bokk liggéey ba soo bëggee soo bëggee nag gudd fan da ngay da ngay bañ a def ci yaakaar te bañ a tëj ci kóllëre kon amaan na ko am kon amaana boo ko doon de da ne kon amaana da da da ko am ne kon da nga jënd benn borom la am da koy jaay te ko amul boo ko jënd da ne ko yow yow téye nañ moom ak alal ja loolu man bëgg naa lool ñu koy bàyyi xel fan yii dafa am sama benn mbokk boo xam ne daa jënd ci jënd bu ma yéem bu ma ciy tëri lool nee na daa dafa am mbokk moo ku ñuy wax sëñ Abdou Kan daa am rakam yu nelaw mu déggoon nag ñu ne ku jàng mu xaddamaat ci bàmmeel def na ci gëzorom waaye dafay def ci guddi ga mu mu génn dugg ci barab yi maanaam léegi ba jub barab boobu ba fekk ja fekk ja jóg ne quoi jabar nga de waaye day fii li ñu koy waxee dafa dafa doxewul noona ne ko fii day dafa dafa bari ko contrôle lool te lu ne dañ koy laaj daal di di ne ko ne ko nag mbooloo moom ñuy wax murid day ñoom seen mbir ci fii dara ndax lu lu lu ko waral li ñuy tudd sëñ Tuubaa di ko dendale ak yàlla xam nga lu am solo de chiffre bi lay mooy soo soo soxna ci nga yóbbu ci kër gi di di ko jox la nga am moo ndik ci añ reer ngir ne ci ci ci guddi gi ci buntu tugar bi te fekk kenn mu ne ko ah yow moom mbaa kër gi nee na mu ko ah te kër gi kër gi ngay ñëw na ngay fii moom doo fi lekk doo doo doo fi naan mu ne ko ah yow kon ku lay jox lekk nag mais koo xaa jiw yàlla doo doo kër ba dikk ko guddi doo ko sëñ bi doo ko soxla waaye ndax dara ko neex su doon fay ñu fépp fépp lañu koy def fépp ba noppi nga yaakaar ne keneen da caa mën dara seen bi bu ko mat di iman ñu sëñ bi doon waxtaan dafa am benn seen naka bu ñëw moom yewaan bi ngi jox jox ko dara ko fere ko def ko yàlla la sëñ Tuubaa defal nangam wóolu ko mu ñëw mu ne ko da ngaa yàlla la yàlla defal nangam ci la def sëñ Tuubaa xam nga loolu mooy tax maanaam nguur